très fiers internautes de la Sen Série TV maa ngi leen di nuyu leen remercier bu baax a baax si ni ngeen di yàndee saa su ne ak ay programme tey seen rubrique décortique dafa ñëwaat ci série nitu intré épisode soixante-onze dañu koy door ak li nga xam ni moo di Ndella nga xam ni dafa feebar xëm ndax nag euh, lekkul euh, trois jours loolu nag métti na waa kër gi yëpp ndax dañoo jàppa ni dafa réew ndax euh, bu fekkee ni que ay caprice moo koy yóbbu ba du lekk ba tey mu tiital kër gi yëpp loolu Thiendella li muy def yëpp pour protéger magam di Thiendella moom moo ko waral amaana ni mu koy defee rek moom moo xaw a ëpp ba tax na kon Thiendella ñëw di waxtaan ak moom waxtaan bu daw yaram ndax euh, comprendre na bu baax a baax euh, ki nga xam ni moo di Ndella bëgg ko moom moo waral muy def lu ni mel ndax bu ko bëggul woon amaana du egg ak moom euh, foofu yëpp te kon Ulay Anta jabar ju mel ni moom yaakaar naa lu am solo la te mooy nag ngay boole sa waa kër di boole ki nga xam ne moo di sa jëkkër ak waa këram ñuy jàll ci Penda Wurus ak yaayam ñoom it lépp luñ mën def nañ ko thermos bi kër papito lañ ko mujj amee ndax wër nañ fu nekk amuñu ko ñu dem kër papito fekk nag ñu am ko mu mel ni kon ñoom it euh, daal di atteindre euh, seen objectif jaral na leen euh, lu nekk waaye ñu gis ni itam yaayu Penda Wurus moo ci gën a sax Penda Wurus ndax na ba bëgg a bàyyi pour dem ci sëriñ bi xool beneen solution waaye yaayam moo koy gën a ki ki mu gën a jàpp ndax deux millions cinq cent yi mu dégg ni cendee la may na ko nga xam ni moo di Ulay Anta ñu ngir ñu nelaw loo say ndax xam nañ ne luñ bëgg a def mënuñ koo def ci bu fekkee ni que rek say mi ngi leen di gis ñu jeexal kon ak moom Penda Wurus nañ ni mujjee na rek réussir kuwam ndax nag fexe na ba euh, échanger li nga xam ni moo di thermos yi donte nag ulay anta xawoon na ñaaw njortu ndax bi mu ñëwee jox ko thermos bi pour mu defaral ca Ndeela Café mujjee naa ñëw daal di koy jëlal boppam daal di koy defaral boppam waaye nag euh, Penda Wurus ci xelam bu ñaw ak ci euh, muus fexe na rek ba nax ulay anta ulay anta moom it bay bëgg dee parce que à chaque fois gis nañ ni naïf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 fàtte ba si cloche de notification bi pour ngeen di jot vidéo yi à temps réel jërë ngeen jëf